maa ngi leen di fay di leen ziyaar ci koor gi di leen baalu àq di baalu àq sénégalais yëpp nii ah lu ngi baax ok la fekkoon Kër Massar def bokk ci association bii donc da ñuy wax rek lan nga lan nga yëg ci association bi ak ngeen ko créé ba léegi nii euh, naka ngeen ciy doxee pour affaire bi. Jean tout d'abord association bii nii ak boobu du benn parce que boobu Tim Kumba famille la ñoom ñoo créé woon Kër Massar bii nag Helping Children la comme ni ko bébé waxee ak euh, lu mu tudda ci Mimi voilà. association la boo xamante ne dañu jug pour jàppale xale yi mais nag comme weeru koor dafa jot te xale yi si lañu bokk itamit dañuy def acte social rek tout à l'heure fan ngeen jëlee seen fonds yi kan am ngeen ay sponsor ay partenariat parce que vous am ngeen tuuti am ngeen am ci réseau yi est mais tout d'abord yàlla moo ñuy jàppaleel boppam ndax bi ñuy débuté amuñu dara ba nii nii bii bi ñu koy def suñu xaalis bopp lañu génne en fait ba nii nii bi nu koy def suñu xaalisu bopp lañu génne voilà donc am nañu aussi ñoo xamante ni jàpp nañ si comme au Kayar jàpp na ci ci ci ci ndogu bii nii ak chef moo chef moo traiteur jàpp na si. man je suis mais sénégalais yi laa faral suñu bëggee rek damay ànd ak ñoom ci mbégte mi <laughs> alors a laaj. waaw loolu ma ci wax parce que sama vie privée la. yéen man maa leen woo buntu yi dafa tëju. Ah, yéen maa leen woo ay buntu dafa tëju wala dafa ubbeeku. leer man leeru ma yéen yéen a ma gën a xam sama vie bàyyi ma bàyyi leen rek ngeen jàpp leen ne. Sénégal dafa mel ni moo waral sax nga gën a jël recul ci milieu bi. parce que ñu ngi lay doo koy gisaat. ngay feeñ ci série bu tudd suma jugul xaw ma bàyyi monsieur mbedd bàyyi monsieur Bob donc euh, est ce que du sa mariage ba amul lu mu la lu mu la yàqal sa carrière professionnelle. non non man yéen da ngeen neex sax des fois ngeen posé question yoo xamante ne man benn moment nekkuma woon Sénégal ñëwaat naa ñëw naa fekk ay série débuté mënu ma tëb tëb rek dugg si série yi bi ma waree duggaat série gis ngeen ma ak waa Marodi Mbedd Baye Monsieur et que am na yeneen projet yuy ñëw ci kanam incha allah xaar leen c' est que artiste nag du chaque jour da nga war di jouer rek bu yàggee da ngay lambal sa image en fait. Evol Pro man fa laa dëkk man ñooñu sama waa kër lañu. non sama personnage soxlaaguñ ko ci série yi mais buñ ko ci soxlaa di ngeen ma gis incha allah naka ñëpp xam man Even Prod laa bokk man man mburu Even Prod laa si seen boulangerie laa génnee. comme Even Prod nga bokk ñu ngi wax naan euh, bété bété ak Babel ah, man loolu leeru ma de. am nga fa ay idée mani loolu leeru ma <laughs> bu ma dugal. waaw. Mohamed Alla. Mohamed Alla Diop jàngkat. man dafay des rumeurs que ni da ngeen a nekk en couple ñaar. ndeysaan ay yow kon de loolu yëguma ko woon. kon loolu yëguñu ko yëg nga. yaa yëg nga ndeysaan loolu yëguma ko. Mohamed c'est mon jumeau kooku yàlla moo ma boole ak moom defal naa ko ne da xam nga des fois dañuy jàpp lu leen neex kooku yàlla moo ma boole ak moom muy sama jumeau man donc foofu rek laa mën a yem leneen li si des nag lu waay jàpp loolu yow la. maa ngi sant bu baax bu baax. Diagne Diagne. Diagne Diagne waxtaan euh, bi la plupart dañuy gis célébrité yi bi nga xam ne nii pour ñu duggaat moo koy nga sëy yàlla moom moo koy takk mais xam nga sëy yàlla moom moo koy takk bu ko yàlla jeexalee day jeex bu yàlla namaatee nga dugg si tey da nga siy duggaat bu ko yàlla namaatul doo si dugg donc loolu du ay affaire de célébrité wala keneen. gis nga fii ku dul célébrité tas tey suba mu am jëkkër loolu yàlla la gis nga ku toog ay ati at te du dégg sax alxayri loolu yàlla la donc lu am rek yàlla la li ma ci waxoon laay waxaat bis bu may bis bu may am jëkkër walla may euh, divorcé wala yooyu noonu nekkul dama leen di woo di leen wax kaay leen yéen peut-être yéenay ñëwal seen bopp pour suturer ay information mais amul leen lu ma ciy wax. d'accord bis bi nga am jëkkër te dis pas que am naa jëkkër wala aw ma jëkkër waxuma loolu de dama ni. bis am jëkkër. non dama bis bu may am jëkkër bu may tas ak may am doom loolu yëpp laa waxuma j'ai pas j'ai pas dit que. bis bu may am jëkkër voilà lu jëm sama wàllu vie privée en fait je veux dire voilà. merci. yéen da ngeen doy waar. moom it bokk na ci membre Helping Children ñu fekk ko ci rond-point Yoff ñu doon joxe ndogu bébé maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak yi. maa ngi lay fay euh, di nuyu suñu mbokku sénégalais yi di leen sant di leen ziar di leen baalu àqu ci weeru koor gi. ren Helping Children ngeen woote quoi. lañu woote. Helping Children nag euh, wuyu na turam mais dafa yaatu parce que à la base. dañoo jugoon pour euh, jàppale xale yi nga xamante ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw wala gisuñu waajur gisuñu ku leen jàppale ils ñi nga xamante ne ils sont pas donc loolu moo nekkoon euh, concept bi ba tey jii ku ne xam nañ dañu nekk si weeru koor donc ñu am suñu association ñu ne duñ ko yemale si xale yi kese weeru koor gi ku ne xam na ni am na ñoo xam ne dog ci mbedd bi la lay fekk ndax embouteillage yi ak euh, les aléas de la de la vie donc am ñoo xamante ne liggéey moo leen nekk mooy mooy tax ñu nekk si mbedd bi donc am ñoo xamante tamit ñi ngi si mbedd yi tax amuñu lu ñu ndogoo donc tey ñooñ ñooñ ñëpp lañ dajale euh, pour jàppale leen malgré que ñu def lépp sax mais ñu def li nga xamante ne nii moom lañ mën ak di tolloog suñu doole. donc association bi hormis weeru koor di ngeen def yeneen activité. parce que bëri na ay affaire sax yoo xamante ne tamit ñu ngi koy ñu ngi koy def ci suuf mënuñoo matale lépp mais bëri na yoo xamante ne nii ñu ngi koy liggéey ci suuf.

jërëjëf